dee ci réer ji tëra reer te moom dootu reer amulaahi lu ngeen ci man gani barahama kullu nafsin saayiqatil mawti yaa ayyuha naasu xarmel kërëng dul la gëm leen sidi barahama ne gannaaw dund gi dee ca topp baleen xel ci dem soldaar mu jëm foo ñu rappel Sidi Baraham man a garab ak dee moo da ñàkk a juddu bi ma woowee dafa yuuxu ci téléphone waaw bi may yuuxa rek bi mu yuuxoo nag laa ne lan moo xew am na lu xew lan moo xew mu noppi rek ma ne ko lan moo xew mu noppi rek ma ne ko waxal ma lu xew fekk sërif moom jot na ko ci téléphone am mu ne ma sa papa moo nelaw rek xamatuma nag waaw fan laa nekk ma jaxasoo ma jaxasoo kooku bi mu jooyee ba daal oowaat ma mu ne ma euh, bi ma ko yégee rek yow sama xel mi daj waaw yow sama xel mi daj waaw man damaa bëgg sama papa ndax ma metti ci soo ba léegi mënu ma ñëw may leen man daal mënagumaa dem fi ne nii ca kër ga sama papa dama ko bëgg bëgg ba ba bi mu nekkee mm, fële Maroc bañ wax ma ko bi ma jëlee wol dañ jiyoo maa ngi moom ci aéroport bi waa dañu man kii bi euh, man wal bi bi nga xam ne bii moom moom moo ko wàcce Sénégal man moo ma yóbbu Maroc waaw <laughs> léegi ma demee ba egg ma oote di laajte fan la nekk ci Maroc ñu ne ma sa papa wàcc na Dakar waaw noonu lañ kii jiyee léegi ma ma bi ma bi may moo tax bi may wàcc Sénégal rek aéroport Sénégal rek laa def directement Almadi waaw dem seeti ko bi ma demee nag ba sukk jaxasoo nag mu ne ma def nga lu rëy waaw ma ne ko papa yow laa doon seet si Maroc mu ne ma def nga lu rëy waaw ma jaxasoo nag mu ñaanal ma kontaan lool sax ndey ndeysaan suma suma papa la waaye suma sëriñ la suma xarit la euh, mu nekk ku ma bëgg mu bëgg ko loolu émale wu ma ko dara ba démb rek kii bi ma def ci euh, télé bi maa ngi koy ñaanal yàlla waaw waxtu bu ma toogee bala maa def dara moom laa njëkk a ñaanal waaw dama ko bëgg bëgg ba ba ci weeru koor bi rek ñëw naa ma ne papa suma papa yow si sukkar bi dama la ko indil dama ñëw tay ba ñu ne ma sa papa ngi ci biir ma bañ la déranger bañ la sonal ma ne xaaral ma bàyyi ba nga ñëw Medina ma ñëw ziar si la waaw dama ñëw indiloon sa sukkar bi mu kontaan nag ñaanal ma ñaanal ma ñaan gu yàgg waaw ma dal di génn dafa nekk sama sama papa pare nekk sama sëriñ nekk sama xarit loolu ku nekk ku ma xam rek xam xam ma ci sama papa waaw mbëggeel gu rëy sax waaw mu bëgg ko lool maa ngi koy masawu bu baax waaw di ko masawu tam famille bi yëpp waaw ñun ñëpp wallaay wallaay sang bi ñees ñees alhamdulilah ñees ñees ñees wallaay maa ngi gis sa appel bi bi waaye dama jaxasoo woon tër ci guddi waaye dafa fekk boobu man booba jaxase naa ba gars yi ñoo ma doon dalal parce que dafa nekk lu métti oowaat naa la ci suba gi ñaari yoon waaye taxul ñu de mën a déggante waaw euh, maa ngi lay masawu sama papa bu baax ci luñ bokk waaw ñun ñoo ko bokk jamono buñ taxawee jot buñ gisantee maa ngi yore li ma lay njëkk a ñaar laaj ana sama papa waaw ana sama papa sama papa gars yi ma wax na ma yaa ngi koy ñaanal rek ci télé bi démb euh, mu nekk ma ne leen dafa nekk nit ku yaatu ku ñime njoboot ku ñemee responsabilité ku dal ku teey euh, ku rafet ku rafet liggéey ku am yërmande ci jaami yàlla yi ku ku baax koo xam ne bii ne euh, jëmmam ji boo jàkkaarloog moom rek jeex na jëmmi yërmande la ku nekk jëmmi yërmande lewet lool sax ñi ma njaboot waaw ñi ma njaboot tous rek loolu laay sedd ci sama papa ba ci këru gan gi biñ koy tabax ma oo ko di ko siyaare ma ne ko papa maa ngi lay siyaare mu ne ma yow yow yow laa dénk eh, kii procès këru gan gi maanaam nga bokk ci ñi ci ñu koy surveiller foofu xam nga man suma kër am naa kër foofu ci ci këru gan ci Daaru Rahmati ma ne ko papa bokk naa ci mu ne ma bokk nga ci kay boole naa la ci waaw waxtu bu nekk suñuy mool eh, fondement bi ñu def këru gan gi njaboot gi nii taalibe ñoo ko gas gas nañ ko semaine yu bëri pour fondement kër gan gi waxtu buñ koy fondement rek may leen waxtu buñ waxtu buñ xëyee di tabax rek man danaa rey xar bët bu set buñ bu bu maçon yi xëyee rek ma rey ma rey gàtt ndeysaan bi mu ko yëgee nag ba affaire bi pare mu oo ma wallaay ngees ci téléphone la ma woo téléphone eh, woo woo am na kenn ku koy jege ci njabootam téléphone ba sonné rek ma jël mu ne ma kan la yaa nee na waaw mu ne ma wér sa papa ma jël mu nekk moom ma ne ko hé papa bàyyil ma woo bu ma woo ci sa crédit mu ne ma déedéet bàyyil ma woo la maa lay ñaanal yàlla waaye di la xamal ne yaa ngi nax nit ñi de ndeysaan nii la ma ko sama papa waxee ñaanal ma keroog ñaanal ma ci télé ci ci ci crédit moo tax maa ngi ñaan yàlla rek. Euh, asalaamaaleykum wa bokki jullit yi amul sikk na li wax mooy dëgg lu la ci bàyyi rek boo gisee sëñ bi nekk ko ci moom loolu may yàlla man mu ne moom li tax mu bëgg Pape Cheikh mu ne dafa gis ne moom dafa bëgg bàyyi te lépp lu la réer ci bàyyi rek boo ñëwee gis ko ci moom mm-hmm. la sedd léegi ci kaw maa ngi nekk yéen ba fu ngeen lu ngeen bëgg rek maa moom comme suma doom amul lu ma defal mu ne amul kum jëriñu si jëriñ ne ko moom jëriñ na àdduna yëpp léegi-léegi moom ay téléphoné mu ne yaayam dafa gaañu sama papa moo joxe juróomi million xaritam la woon fii rekk ñu toppatoo ko yooyu te moom chrétien la mu ne moom papa Cheikh eh, ñëpp ñàkk nañ ko ñëpp la dimbale ñëpp jëriñoon ci moom yàlla ngi wax ci alxuraan na bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko sallallahu ci ay alquran ko yi da ngay mut dee te sam képp fu ànd yow dafay dee ñu doon koo xam ne njaboot njabooti ñëpp la ko ku mu xam ak doomam ak doo doom xàmmeel moom daal jikko baay bi leeroon ñu la ree ci baay rek boo seetee rek gis ko ci moom kerse gi ak euh, yar mag mu yaru am teggiñ di wax déedéet mukk te njaboote uuf ñëpp ak yooyu waaw moom amul kenn ku muy gàntoog yi loolu yàlla ko defoon xool la sax mënu ko ñun doomam yi sax mënuñoo xool ak yi bu ñuy wax moom nuy sëgale yonent bi mu ne ki mi ni muy nekk ki mu bëgg mu ne almaro ma man ahaba والمهم بقولون لما يشاء تجان شيخ فاهم شيخ شيخ أحمد تجان رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عجيب بابدان أجيب def daan ànd ak moom amul benn aj boo xam ne àndut ak moom yaa moom xaddi mi ngi may téléphoné léegi ci suba mooy aw papaas mu ne ma ñun alaaji abdullah bi mu génne àddina wala bi mu génn avant mu génn àddina mu ne daf ko wax ne jox naa la sama njabar yëpp àddina ak àllaaxira yaa moom xet ma ne lépp loo xam ne sëñ bi daal leen ko defal benn mu ne moom ñaar fu la leen ko daan defal mu ne yéen ñàkku leen waaye moom moo ñàkk loolu ma téléphoné bàyyi ñëw waa Nigéria yi toxal nañ sax affaire bi ñu ne ñoom foog ñu ñëw seen ñëw bu xaar dañuy indi ñeenti avion ñu nañ leen xaar dañuy ñëw ñoom itam waa Gana yi ñoom itam ñu ne dañuy ñëw hmm. ku def lu baax rek lu baax rek nga am kenn du def lu baax am lu ban ma ne kenn du def lu baax am lu bon nit ki nu ji rek loolu lay góob yal na yàlla xeet ci lu mu bëgg ak lu gërëm ñu ngi koy jaale ñëpp parce que moom pour ñëpp la woon. bàyyi ñëpp loolu ñëpp la ëpp lu la man bàyyi rek laa ko doon xoolee parce que xam naa bàyyi bu baax xam naa ko fekke naa jamonoom xam naa ko waaye def daan xidma bàyyi dundam yëpp xidma bàyyan moo la moom la yónni woon mu dem Nigéria dem Mali Burkina euh, Cotonou foofu yëpp war nañ dugg ba Nigéria ñu dem ba Abuja jóge fa ba Ijaase ay xeet yoo xam ne Yoruba yoo xam ne asalam seen cosaan ñoom duñ julli te Nigéria mi ngi am ñetti téeméeri million te ñoom ñëpp ñun taaliba bàyyi te bàyyi làkk bi mu làkk moom arab rek la làkk ñoom ni mu def ba boole ñun ñëpp ñu nekk benn bokk ndey bokk bàyyi loolu bàyyi rek la ko yàlla may fii ci dëkkam nga mën a waxee làkk boo fi làkk rek ñu tontu la loolu bàyyi rek la ko yàlla may yal na yàlla xëy ci li mu bëgg ak li mu gërëm affaire bi métti na trop waaye buñ muñee rek yàlla wutal ñu dëgg moom bëggutoon lu may Cheikh Ibrahim Cheikh Tidiane ne moom dafa dàqoon sa doom taxaw taxawaayu taalibe paxam maqaama boobu la taxawoon ñu ngi leen koy jaale ku nekk mën na ko jaale sa parce que moom nit ñëpp la woon ñu ngi leen koy jaale nasta wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun bi mu demee ba léegi kenn toogul yéen ñëpp ñëpp yëg nañ ko àddina bi yëpp yëg nañ ko Amérique ak London ñëpp ñu may téléphone waaw kon nag amuñ dara lu muy wax mooy sant yàlla ne alhamdulilahi rabbil alamin ala kulli xaal yàlla def rek lu moo bëggoon ñu ñëpp lu mu jël rek moo ko moom hmm. li fi des daf ko jël bu ko neexoon mu jël ñu ñëpp benn yoon تدرد خاوية أنا لي سنتي على الحمد لله باع لي مدير موك موم لي في داس ماكو دف خيجل يعني يا لمينا أنا دفل لين لي جن يا لمين تيابو خي نتريم بقى علم جن يعني أنا يا لا يا لدفل لين لي جن يا لمين جام بجاي رسول صلى الله عليه وسلم بجاي الشيخ متيار الله bi jaay Cheikh Ibrahim wasilatana alhamdulilah rabbil alamin sidi barahama waqi ndundu dee koy widdi balar quartier dem bu galdi kosse galdi départ sidi barahama ne guddeeg bëccëg fajara koy hatte moom laam duun moom bu jant fenki lëndëm bi sidi barahama awlu baram doolo bara lay fal ñakko du réer yaasin ci boy soppeb sidi barahama na jaaleen ma muri sadiq bi baba yaasin ci tijan ba nga helina sidi barahama na ba da bublu xer ca bambugaar baba yaasin ci moom wees la ndar bala jox sidi barahama jox ko safoor boole koog isaana feeg liggéey bi lu ma xam day dawal service sidi barahama na samedi ji ci timis ba babaay toll ci sukoraat hëtti fu rabban ba téléphone sidi barahama ati banko nan barahama tey nag yaay booy comme ni nga ko waxee sa maam yaree la ko sa wajur yaree la ko mi ngi naa Seex Ibrahima Fall bànneexu ñu seen di sa bànneex naqaru ñu seen di sa naqar waaye naqar bii nag moom dafa diis si yow lool xam nañ ne xol bi fees na waaye yéen kàddu nga am pour jox ko taalibe yi nga xamante ne waxtu nekk rek yu mel ni su amee da leen leen dëfal delluwaat leen si yàlla. alhamdulilah rabbil aalamiin ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di sant suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima Niass Baye radiyallahu taala anhu di wax ne ñàkk nañ tey euh, bànqaas bu rëy bu ci diine islam bu rëy ci tarixatu Cheikh Ahmad Tidiane Sarif radiyallahu taala anhu bu rëy ci faydatu Mawlana Cheikh Ibrahim Niass Baye radiyallahu taala anhu euh, suñ wax mënut a bari tey ndax suñ xol dafa fees lool lool lool ndax papa Cheikh euh, ku ma xam rek xam ne papa Cheikh suma papa suma sëriñ la waaye suma xarit la aussi mu nekk. dem boo xam ne bu lu tiis jaami yàlla yi la metti na ndax nit ku baax la nit ku lewet nit ku yaatu nit ku bëgg baay di papaam nit ku nangoo sonn ci nit nit ku oyof waaye nit ku ñime responsabilité la nekk nit ku dal te teey ku baax te lewet tey moom la ñàkk muy suñ sàng papa eh, cheikh tidiane khalifatu maa ngi jaale pay bi yëpp di jaale imam akbar cheikh tidiane si di jaare poste porte ngene na Baye bi di Cheikh Mahi si di jaale mboolem jobatu Baye rek gor ñi ak jigen ñi mag ñu ak ndaw ñi maa di jaale di wax ne tey suma wax mënta bëri asalaamaaleykum wa rahmatullah di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di ñaan yàlla yal yàlla yoon ñi suñuy musiba bii di wax ne diis na lool diis na lool waaye it ñu ngi sant yàlla bu baax ci lii ndax li fi ne yàlla ak moom li mu jëlit yàlla ak moom ñu ngi koy jaale imaamul akbar di ko jaale porte parole Cheikh Mouhamadou Mahi Cissé di ko jaale alxalif Cheikh Mouhamadou Mahi Niass waaye di ko jaale Seyda Cheikha yaa neen ne Thiam mi nga xam ni ñëpp xam nañ ko ci bëgg baay ñëpp xam nañ ko ci bëgg njabooti baay gi ñëpp xam nañ ko yit ci bëgg njabooti Seyda Alioune Cissé loolu du tey lañ ko lañ ko mën a seede mais yàgg nañ ko seede comme ni ko ñëpp di seede mën nañoo ax ne àdduna la ci biiram yëpp xamal nañ ko loolu te nit ki war nga góorgóorlu ba am dara ci bàyyi ak lu mu mënti doo rek yow na nga am dara ci bàyyi te seydaa dëgg-dëgg am na dara ci bàyyi li mu am mooy fu mu dugg rek danañ xam ne jaamu yàlla bii ñëw ni ku bëgg Mawlana Cheikh Ibrahima Niass la te loolu li arab naan laa wa jomm ko parce que ku génnee ci Mawlana Cheikh Ibrahima Fall euh, dëgg-dëgg nii rek nga mën a mel ñu ngi koy ñaanal moom gudd fan ak wér lool ñu ngi koy ñaanal mëdët bi daan jugee ko ci pee bi yàlla bu mu dakk ñu ngi koy ñaanal yàlla yokk dooleem yokk kàttanam yokk ay mayam ci yàlla dëgg-dëgg ñu ngi ko koy masaw bu baax parce que yéen ñëpp yéen a ko gis sànq ba léegi mënut a wax li ko waral mooy dafa ñàkk waay jur boo xam ni way jur la ci moom ki dem si guddi rek ci lañ nekk di waxtaan ba far xibaar gi bi mu amee démb hésité naa ay yoon pour wax ko ko ma ne ko mbir xew na mu ne ma lu xew ma ne ne ko mbir xew na mu lu xew ma ko ah sa papa noppalu mu ni ma inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mbir mi diis ko lool démb ba tey dafa jaxasoo démb ba tey dafa jaxasoo mais loolu du dara lu du mbëggeelam ci baayam ak yaakaar gi mu am ci baayam nga xam ne yéene woon na ci moom yeneen yeneen yeneen liggéey xëy na liñ ci mën a gis nii rek moom lañ gisagum waaye yéeneem ci góor gi bari woon na lool waaye ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla matal yéene gi ci barke yonent bi barke Cheikhu Tiyaan barke baay ak baayam allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa salaamu aleykum wa ಮುಗಿಲೇ